Euh, mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen site 28 pro ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen euh, gan boo xam ne ni muy édition spéciale entretien exclusive euh, ci xayma nag dañuy xayma li nga xam ne moom mooy élection législative bi ñu génn te coalition Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi ak wàllu ñëw ci maanaam raw gàddu yi tegalantooy noonu mbokk yi ñu ngi Mbàkke xam nga ne euh, électorat bi fii amoon euh, élection yi ni mu demee ci ci fan yi ñu weesu dafa jaaxal ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa Benno Bokk Yaakaar naam sax am na ñu mu jaaxal am na ñu mu jaaxalu d'après point de presse yi nga xam ne nii leader yu bëri def nañ ko ma nekk koo xam ne nii nag saa su ne rek ñuy wax ci actualité te mu nekk membre fondateur wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo sës APR fii ci Mbàkke APR laay wax ma benn bokk yaakaar Omar Ndiaye maa ngi lay nuyuwaat. Euh, Sidi maa ngi lay fay di am mbégte contentement bu mag ci site bu mag bi nga xamante nii euh, àdduna bépp koy seetaan ba pare di ci bàyyi xel di am tam mbégte contentement bu mag ci ki nga xamante nii moo ñëw pour dalal ma muy Sidi. di nit koo xamante ni itam nit ku département bi bàyyi xel nga nit koo xamante ni itam nit ku Mbàkke bàyyi xel nga donc yooyu dafa am solo ci émission mooy yow mi wax kiy wax ak yow kan la parce que yow sa déplacement dem ci euh, nit di ko jël lépp looy dem di ko jël lu am njëriñ lay doon ak luy jëriñ réew mi ak luy jëriñ département bi donc euh, tey jii mënoon ngaa yónni keneen mais toujours boo may jël yow yaay déplacé wu ñëw te yow itam am na sa doye fu mu toll ci ci politique Euh, ci euh, ci journaliste kon man tam maa ngi am mbégte contentement bu mag di am tam ñaanal gu ma lay ñaanal mooy site bi euh, foo bëgg ma àgg fa rek yàlla na ko fa yàlla àggale ci barke weeru seelu tedd wi. jërëjëf mbokk yi kon dégg ngeen nuyoo yooyu ñu ngi koy fay tamit di ko jaajëfal alors Omar Ndiaye Angloma coalition Benno Bokk Yaakaar pertati na élection yi rawatina ci législative bi. waaw pertati na élection yi ci nan parce ah, perte ngeen élection yi rawatina moom ci département bi département da ngeen a pertoon euh, kii bi ñëw législatif ngeen perte at département. waaw xam nga euh, élection yoo xamante ni nii dañu ko gañe ñun ci liñ jàpp mooy ñun bu ñuy wut majorité bu ñuy wuti ay député euh, majorité ak ëpple moo tax ñu di ko wut te yaakaar naa ni compétition bi ñu demoon muy national nga xam ni dañu soxla nombre de députés euh, am nañ juróom-ñett fukki député ak ñaar benn Wallu Askan Wi am nañu bokk nañu ànd ak benn coalition am nañ juróom fukki député euh, parti bi ab lay Wade demee woon muy euh, Wallu am na vingt 27 députés jàpp naa ni nag juróom-ñett fukki député ak ñaar kenn du ko tëkkaleeg ay 20 ak i juróom fukk kon li am solo. muy ëpp ëppalee député moom ñun ñoo ko def kon ñoo gañe donc bu fekkente ni ni ci commune de Mbacké bi ñu wax nii dañ fi perte perte fi du fi gan parce que président Macky Sall mi nga xamante nii moom moo yor réew mi di ko doxal même bi muy jot euh, pouvoir bi dafa perte Touba bi ñëwaatee élection yi deuxième élection yi mu demaat dafa perte Touba élection député yi nga xamante ni en 2012 Galas Kaltooma ko jiite woon dafa gagné commune de Mbacké gagné département bi largement am lu mu tubb Touba mën a gañ kon du électorat boo xam ni mën nañ ni ñun ñoo ko moom. parce que boo demee Fatick mënoo faa gañ Macky Sall boo demee Fouta mënoo ko faa gañ mais Touba yàlla moo dogal peut-être que seefu PDS la parce que même jamonoy du Diouf bi politique bi tàng dëgg dëgg dëgg dëgg sax. Touba toujours dañ daan jël position ci ab Ablaye Wade boo xoolee même bi muy jëlee poir bi sax ab Abdou Diouf lim am ci Touba amu ko ci benn dëkk donc loolu dañ leen koy nangul mm. bien vrai que gars yi dem nañ élection def nañ lañ mën gañ nañ leen parce que euh, euh, euh, du chirir la boo xam ni mësuñ koo gañ xëy na un parti poir mënoon na ko sax jéem a dabu parce que boo xoolee 2012. bi ñuy gañee gagné euh, euh, Ablaye Wade dañu perte dañu gagné commune de Mbacké gagné département bi perte Touba ville mais département bi yëpp ko gagné. bi ñu ñëwee élection député ñu investiroon Gallas Kaltom 2012 dañu gagné département bi largement gagné commune bi am luñ tubb Touba député yee jàll mais ci Touba gars yi liggéeyuwaatuñ lu war a mën a téye amaat yokkaat électorat bi. ba boo demee élection gagné ko parce que nag. lan mooy liggéey lan mooy liggéey bi mooy lan. liggéey bi mooy xam nga politique dangay ngay da ngay da ngay da ngay teg ay politiciens ñu yaatal base bi am électorat boobu ñoom ñoo ko téye mais cest ab politique du ëpp coxoo élection yu ñëw rek ngeen dem tey c'est sûr ni tey bu ñu ñëwoon Matar Diop lan mooy sab électorat boo xam ni yow yaa moom allah kulli alin yow la ñuy wooteel du la mi ngi nii. boo ne woon si Abdou yi ana sa électorat allah kulli alin yow euh, mille yi wala nangam yow la ñuy wooteel nga ne mi ngi nii nga boole ñoom ñëpp leader yi nekk Touba ñii am 3000 ñii am 2000 ñoo am am kii amul ab politique la rek boo xam ni gars yi dañuy pëccaxoo. Euh, euh, électorat bi kële opposition bi la même chose genn wàll majorité Touba bi diabolisé nañ président Macky sàll ci sëriñ see ci nit ñi ba kuréel nañ nag seen bopp ñoom. li ñuy gis toujours mooy Macky sàll moom ça sauf que Macky Sall parce que euh, euh, Ablaye Wade da ko doon gagné Idrissa Seck bi mu ñëwee élection yi dañ ko woteel yow yi bi mu ñëwee kon kon ñoom seetatuñ sa Ablaye Wade c'est-à-dire bu Macky Sall gagné rek la loolu nag euh, loo xamante ni la ñun dañ koy nangu waaye nag fuñ ñu gañee tuubaa rek Fuuta fayal ñu ko. Fatick fayul ñu ko. Kaffrine fayal ñu ko non. foofu ngeen ko wékk ko. non non dama lay jox exemple. que xam nga. xam nga boo tuddee Fuuta xaaratul tuuti ma ñëw. boo tuddee Fuuta. Mhm. yaa ngi tudd leneen. ci fief maanaam ci localité bi nga xam ne moom ngeen nekk di département bi. te yow yokk ko nekk yaa problème. sànni pëcc xoo la pëcc xoo boobu noonu ngeen war a la kay bu leen tudd ay Fuuta. man électoral laay wax. xam nga politique moom. caw sa xiir la ak C. fu ñu cawee ay xiir Touba bañ sëgg rek Fuuta bu ñëwee jox ñu si vitamine C ñu siggi loolu kat mooy électorat bi mooy bu fekk fu meloon ni nu mu moom nu mu tëtti ñu am sax benn député assemblée nationale kon il faut ñu tudd Fuuta il faut ñu tudd Fatick. kon Fuuta daal mais Fuuta la génn moom dafa doy waar de. waaw dama ni dama ni dafay génn dafa doy waar xam nga moo fay génn. génn dafa doy waar mooy PV yu kenn dul si du signé. xam nga yooyu gars yi porté nañ ci plainte ñi koy wax xam nga nit il faut ñu respecté nit ñi Fuutaanke yi ay sénégalais lañ bi pare ay nekk ay nit yu noble gis nga Samba Jabare Samb dafay xalam mu ne nit bu amee cosaan lu mu la wax dëgg la ci moom mais nit ko amul cosaan lu mu du dara gis nga yow mii mu naar say wax laa gën a gëm ci waxi keneen man mooy fuuta boo demee ay lañoo la kippal lañ la wax la ñuy def moo tax par exemple président Macky sàll lañ faral moom lañuy ñuy woteel pas ay mbokk ay xeet moom lañ gëm bi Sénégal de Sénégal ak léegi itam la président def Fuuta nu mu tëti benn président mosu ko faa def lim def Touba gii benn président mosu ko faa def lim def ci beneen dëkk benn benn président mosu ko faa def waaye ñoom xamal nañ ni président makki sàll amal na seen seef njariñ ñu di ko wooteel teguñ ko ci ay ay ay alpulaar ak yooyu de xam nañ ni moo gën ci réew moo gën fañ ne wooteel ko la même chose que ci yeneen dëkk ña deful nag ñooñu ñoom ñooy ñoom ñooy consi ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy suivre les conséquences parce que boo demee tey fu mel ni Touba hôpital bi mu fi def bien vrai ay sénégalais lañ même bu ñu wootul dañ ko faa war a def télé yi ñu fa def même ay sénégalais lañ mais liñ mën a jàpp ñun ci électorat mooy Sëñ Blaat Mbàkke mooy doomi sañ Touba kenn tiimu ko parce que doomi Sëñ Touba am ëpp ñëpp dafa ni woon élection 88 nañu wooteel ab Diouf ko te ku ko warale saw carte war nga Sëñ Touba te boobu Abdou juuf bu fekkee murit la du murit mais xam na ni li muy def ci Touba ci courant di ko ci jàppale ci mu ndox taalibe yi mënuñ ko kon gor su la defal loolu te soxla ci yow sa aw kart mu ne boo ko wotee lu wóor taalibe dañ ne gor su la defal loolu te mënoon koo yóbbu feneen di wax donc kon kon yooyu nit ñi dañ cee wër di di ko def man naw naa sëriñ soosu lool man bu may jël position di jàppale dama ko daan dama man gars yi li ñuy wax nii naan ay noo teg naa la loxoog déedéet nañ wooteel diw moom laa gëm buñ ko wooteelee nga xam ne yow def nga sa devoir boo deful nga def sa devoir. yaa ngi yaa ngi tourné autour du pot. waxal ma li nga xam ne moom moom moom nga war a bëgg a wax. xam nga xam nga xam nga Sidi euh, dafa am loo xam ni euh, ci masi ci masi laa wax làmmiñ du ko laal da koy junj rek géej gi sinon même sa bi dama koy yàq. ndax am na loo xam ne même boo ko waxee en direct yow da koy dagg doo ko dugal te sa àdduna du la ko jaral mooy doom nit ñi dañoo war a bàyyi ay naxee booy jàppale nit nga jàppale ko ba ñëpp xam ne nga koy jàppale. sëñ Abdou Lahad dañu woon du Diouf sama wenn xob bii may doomi sëñ Touba war na xob war na war na xobi Sénégal gépp te moom laa lay wooteel daan gañee sëriñ bi te waa woon la même chose maam Abdou si jël maam Abdou si jëloon jëloon jëloon position cest pour ñu pour ñu romb loolu. pour bref rek mooy comme léeg-léeg gars yi li ñuy wax naan sëriñ bi Macky Sall la jublu waaye waa Touba jubluwuñ Macky Sall loolu lépp jëru ko ay nit boo bëggee jiite ay nit te jiite ñi nga xamante ni nii téeméeri nit lañ jiite juróom ñi nit ñu nitee ko gën parce que nit ku nitee da nga koy junj rek mu xam ndax man bu fekkee damaa dëkk sama kër baay sama kër baay mos sa am robinet nit andil ma ko fa mës am courant nit andil ma ko fa mës sa amu yoon nit andil ma ko fa nit kooku buy xëccoo dara même bu ma ko su sama baay moom laay jàppale. donc loolu mooy le problème de Touba ba pare ña fam nekk ni dañuy jàppale président mais jàppale ñu Macky Sall ñenn seen i seeni i poste la jàppale. exemple bi ma lay jox ko mel ni Cheikh Abdou Bali jàll na liste national na delloo dépité gi. lu tax mu koy delloo loolu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma la day delloo député gi. waaw loolu nag foo ko teg lu tax mu bëgg koo delloo. xam nga ma lay laaj rek. mënoo ñëw nga ni ministre conseil nga da xelal président nekk porte parole nekk euh, porte parole communication màggalu Touba di sëñ doomi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu gañ la Daaru Xudóos duñ mës sa gañ ci nit ci élection te muy sa seefu baay sëriñ bi. waxuma Touba de comme man gañ nañ ma Daaru Xudus c'est-à-dire sëriñ bi dañoo waroon a gañ fépp Touba moom mu gañ a Daaru Xudus ñu ne tuubaa centre yëpp lañ gañ ñu gañ sëñ bi gañ a Daaru Xudus ñoom man kon ban njëriñ la sax Touba yow muy sa seefu bàyyi ak sa maam sa mënoo koo gañe. nga bëgg rek mu xam nga ñaari affaire dafa am dafa amoon bis boo xamante ne nii Lamine Koura Gueye bi muy compéti compétir ak Senghor génn kilifa gu mag dani ko demal tëdd nelaw yaay gañi mu ne ko ah foo ko teg mu ne ko gor yëpp lañ ko lañ àndal diw ca Touba yow la àndal diw ca Tiwaawan yow la àndal mu ne ko kon ñàkk na mu ne ko lu tax mu ne ko bu jaam yi ëppee seen waree gañ di te boo xoolee réew mi ni muy demee nii man ma ko gis mooy dem lâche ñu ëpp parce que nit da man bu ma gisee ni baaxul damay taxaw hmm. du du ma di jël xaalis du jël carburant du jël oto. moo waral sa moo waral xam nga Sidi am na euh, gis nga Sidi. nit du nax ku muy àndal mbir boo ca bokkee dañ lay laaj parce que bu yàqoo yow la yàqul ndax séy fa te nit doo ànd as gor soo xam ni lim la mën a lépp mi ngi la koy defal nga di ko nax di ko laaj ay cent millions ay cent millions dem leer na leeral yàlla ni yow mënoo gañe parce que biñ jiitalee mataar ñoom dañoo fas seeni loxo ni d'accorduñ ci. biñ ñëwaatee nañ ñu ko sëñ bi ñun kat da ngaa jiitaloon Matar ñu ni d'accord uñ ci bii yoon il est prêt pour ànd ak Matar jiital ko mais ñun buñ ñu jiital danañ ko jàppale mais dañ leen dugal ci liste ñu door a jàppale Matar ñu door a jàpp ci liste ba Cheikh Abdou Bali moom nu mu tuddati moo nu mu tuddati nee na ministre conseil la ñaata ñaata ñaata ñaata weer la fa nekk. ministre conseil moom du ministre amul portefeuille nag mais ministre conseil loolu du portefeuille loolu amul. xam nga xam nga en tant que premier adjoint maire de Touba. ak niveau bi mu jàng ak xam-xam bi mu am. boo ma joxee ministre conseil bu ma nee nit ku sérieux dama ne la président seet xam naa bàyyi ba nga am poste responsable xam mën naa ban la. député bii da nga koo xeeb. xam nga Sidi boo bëggee émission bi neex danga may bàyyi ma doon. waaw mais non mais man tamit man tamit la xam naa li ngay bëgg a développé. mais am loo xam ne dañu bëgg mu wax mu leer rek. man xam naa li ci député xam naa la muy fayeeku xam naa li ci directeur général port xam naa li ci directeur général COUD. xam naa li ci directeur général Dakar dem dikk base politique day am lu koy téye ab député mënta téye base politique. waaw ah ah, yow tam siiti nañ waxante dëgg yow tam salaire lu 1 million 500 bi nga mën cee may say militant yor say mbokk may ci ñeloon lay jàppale mën cee mën nga cee mën nga cee kaam. est-ce que foofu la yem. Ah, est-ce que foofu la bëgg maanaam nga est foofu lay yem. li ma jàpp mooy sëriñ boobu. 1 million 500 mille damaa jàpp ci capacité am ak li ko ma am liggéeyal. damaa jàpp ne war na ko mën a fay sax boppam. mën na koo bañ a dama ni sëriñ bi kaay wax la rek dama ni mën na koo war a mën a fay boppam gis nga mag ñi yàlla nañu leen yàlla fayal bàyyam sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma kilifa gu mag dafa mës a ñëw di ko tayle këram mu toog ci personnalité bi amoon di ko xool kilifa gi wax ba pare ni ko kayitu kër gaa ngi nag Mbacke damaa bëggoon nga abal ma nangam bu ma lijjanti koo ñëw andil la ko bopp bi rek mu teg ko ci fa tey bi sëñ Cheikh Mbacke jël xaay bi jox ko. waa a dem rek le problème ba ba ak ay at ay weer gis nga kii nettoyé salle bi buy nettoyé fi mu fekk kayit gi da koy yëkkati nettoyé ba pare tegaat ko mu ko abalee sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fall ba mu ñëwaatee ci kër ga fa la ko fekk fa mu ko tegaloon sëñ Cheikh bi mu ñëwee di ko delloo xaay bi sëñ bi dañu ko man abalu mu lebalu ma loon xaay ndax yow sama am nawle nga ñoo bokkoon seenub nawle mu ne ko man duma la lebal da ngaa waroon na ñëw rek ni ma jox ma loolu dama la ko may kayit gi fi mu ko tegoon yaa ngi ko fi teg da koo teg sama loxo mu ko dee mu ne ko mënu su ma ko jëlee noonu jëlaatal yóbbu mu jël kayitam ak këram gis nga valeur yooyu nit du am baay bu ko am sëriñ bi am noo xam ni da koy doxee ci ay naxeek ay tëf yëngal gis nga ñii dañoo am problème sérieux waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy léegi léegi mooy problème bi yow yow euh, je te comprends donc euh, mais nag euh, mbokk yi c'est pas une une chose de Cheikh Abdou Bali rek qui nous anime sur l'émission bi nga xam ne entretien exclusif ay perdant ngeen mais Anglo Mar du fekke mukk fu defetu defetu Benno Bokk Yaakaar ci at yi ñu weesu ñaari élection am na fi campagne néeg ba élection yi jeex wala boog nga ñëw voté toog tëdd sa kër gis ñu la te nga ne membre APR nga loolu moom moo jaaxal waa Mbacke ak waa Touba. xam nga Sidi man bi may xeexal président Macky Sall en 2009 maa nekkoon mandataire APR i bëggee nekk mandataire coalition Soppi Paa Baxaw Fall nekk mandataire Benno ak Tanor Rewmi Idrissa Seck ñaamu sa nekk mandataire ñu dem élection i bëggee am 4000 voix non 6000 ñoom 4000 voix ak 9 conseils jël bi ñu ñëwee élection présidentielle 2012 opposition pouvoir bi fi nekkoon proposé nañ ma lu ne pour ma démissionner bàyyi Macky Sall ma toog fa. ñu dem élection ñu gagné ñu gagné ñu gagné commune bi gagné département bi. am na loo xamante ni nii Angloma da cay mën a xam lañ ko tëralee nañ ko defee ma bokk ca man lu ma xamul luñ ko tëralee duma ci dugal suma loxo du ci bokk. dem nañ audience ci président dafa am ay nit ñu di si ne ñoo représenté Mbàkke département bu toll ni Mbàkke commune Mbàkke bu ñu mënee dem toog ci audience ci président Angola maa waxul Morane Gueye mii waxul responsable kilifa nekk mën a gañee Mbàkke waxuñ y'a problème sii dinañ waxante dëgg politique bii nag dañ cee dugg pour defar suñu réew ak suñu dëkk waaye man dugg ma ci pour nekk jaamu kenn te man jamais de la vie man ndax président Macky Sall. loolu moo taxoon nga toog. waaw ma ni xam nga man dama lu dem di jël cinquante millions ki vingt millions ak ci cinq millions nañu ni rek Angloma jox nañ ko cinquante mille wala dix mille ci xaalis pour mu campagne c'est-à-dire problème bi mooy man leer na ma leeral yàlla ni ñoom fañ jëm ak fañ jëmee Macky Sall baaxul parce que da koy nax xam nga mënoo mënoo mënoo mënoo dem nee naa ci élection yoo xamante ni nii Matar Diop bañ jiitaloon ci département ba da ngeen koo sanctionné yéen ñëpp ngeen toog seeni saal campagne lu leen ko ñu xëyaat suba boole leen yéen ak Matar Diop ñëpp neen dem min ñee leen di jéppi sax bu ngeen àndee l'état bi ñu ko jiitalee jàppale leen ko wala ngeen ngeen tëj l'état defu leen ko ba ilaa ñu nu mu tëti ngeen bàyyi bañ jiital leen yéen ñëpp ngeen taxaw ci kanu président naan ko naan ko juboo nañ léegi président xoolal juboo nañ ñuy nuyoon ñu juboo nañ léegi ñu ànd nañ nekk benn ci ñoo xamante nii bu fekkante ni ay nit ñu normal lañ ñoo war a jubóole seen bopp avant ñëw ci président loolu la demee léegi bu ñu ñëwaat bu ñu ñëwaat bu ñu ñëwee ba ba ba ba bëgg a ànd ci nu sérieux wul mais boo ñëwee ci askan wi wax ak ñoom waxoo ay ay xara ki bay ay nit ngay waxal mënoo fee wax barki démb lii suba nga bëggaat a ñëw wax nit ñi lii te ñu lay wuyu ci loolu mën mënta nekk yow tam. d'accord léegi yow loolu moom moo tax kon nga toog jàpp sa njàmbur euh, yëgalul la wala impliqué wun la euh, ci émi euh, comité électoral bi gisoo ci sa bopp dénk ñu la loo xam ne la la ko war a dénk moom moo tax nga toog. comité électoral Touba bi ñu koy monté. Touba ak bu Mbacke yow Mbacke nga def déglu ma bu Mba bee gën a garaaw xam nga lañ def beru di ko def defoon nañ a ma daan am ay ay ay support Mbacke sax pour ñu ñëw ko ñu téye ko di siis nit ñi jàpp ni mën nañoo dem ak seen bopp bëggoon mais programme boobu lañ tëral nañ éliminer Mbacke booluñ ci dara dem defar seen comité électoral da nga fa benn nitu Mbacke bu toog biñ ñëwee fii à Mbacké waaw déglu ma xam toog nañ bañ élection yi démarré une semaine ñun dañuy defar comité électoral Mbacké sëriñ bi loolu du comité électoral campagne bi démarré na une semaine sii de gis nga nit ñi bu fekkee dañoo bëgg a ak Macky Sall da nga koy da koy wax dëgg te bañ koo nax mais ay théâtre ak ay naxeek man yooyu nekkuma ci man Macky Sall gagné ak mu am majorité assemblée nationale jaral na ma lu ma mën a am waaye ñii ni ñuy doxee pr man parce que Sidi nit da koy wax dëgg ba pare da koy tegal li nga koy tegal am na fu mu fu fu fu fu fu mu tegee. mais joué yi ñuy joué nii yow mën nga fee gagné ay élection même pas six mois nga ñëwaat ñu ameli la Mbàkke gañ la gañ goo xamante ni waxoon naa leen ko ma ni leen. loolu laa bëggoon nga dellusiwaat ci. 8000 waa yii ñu wax ni Gallo moo gagné Abdou Mbàkke Ndaw ñu ne koo gañ dubal dubalte ko buñ ko degoon ci la Matar Diop gañ ci département Matar ay gañ boo ko ci dugal la mu complété. dañ ñoo gën ci commune bi ma mataat wooteeluñ ko kon bu doon électorat boo complété da ngay la lay wooteel commune bi wooteel la département ba kon buñ ñëwaatee ci élection ya yow ma jiite woon lu matul six mois am huit mille et quelque voix di star nga waaf buñ la bëggee waaf loo sax buñ la yow parti buñ la waxoon ni la yow buggal toogal bul jiite sax danga naa war a bu ma jiitewul ba maay jiite liste i bëggee ñu ñemewoo defar ab liste ci commune bi naan ko doo ko jiite ñemewoo ko woon kon mu nga waaf ñu jël suñu jabar jee nga xamante ni nii sëyal na jëkkëram sëy bu rafet wax dëgg yàlla daba kenn mënu koo sikkal ci mbàkke gi mais niñ ko dugal loolu du compétition nag yow sëriñ bi Abdou Mbacke Ndaw ak ab euh, kii nu mu tëddee euh, daba du com du compétition. du compétition non du compétition xam nga ah, xam nga da ngay wax mais mais d' accord mais d' accord yow yow wax nga ko léegi wax nga ne nga yow li yow nekkoon sa objectif. moom mooy fexe ba président am majorité assemblée nationale gagné euh, ci lu bëri mais yow da nga deful benn effort buy wane loolu nag moom moo jaaxal nit ñi tamit moom laa la laaj ma ne moo tax sa tekkaaral gi lu ko waral. damaa wax ni man APR bu fekkoon ab tariixa la comme sëñ Touba mii. sëñ Touba mii ni xam tariixa am maam Seeraay Fall laa ciy door wala maam Seexanta ba yëf yi jafee. la mauvaise en wax fexe bandi ko ci poire bi. waaw déglu rek wax la si. waaw loolu dangay ñëw xam naa ne démb yow yaa ngi woon ci APR saf na ci sap mais tey laa la wax. waaw si tey itam danga may bàyyi ma wax tey. da ngay ñëw da ciy xam nga boo nee démb ak tey man mënumaa ànd ak di Jaxate faral ko mu leer ma ne danga may dañ koy nax te yow laajoo ma ah damay toog di la seetaan parce laajoo ma Sidi boo ma laajoon Angloma lan mooy sa xalaat. man la jiitalal kii gañoon galo wutal ko si pelian bu gañee mu génn bul dugal sa engoulement mais jiitalal galo wutal ko si pelian nga ne ma Touba man la jiitalal si Abdou Bali yóbbu Galas Kaltoom liste nationale ah, ñoom ñoo fi nekkoon depuis ay at di daw di wax nañ ko nañ jiital nañ jiital nañ leen jiital ñoom li tax ñu doon làq ci liste nationale ñu jël Galas sacrifié ko. mais yow Galas ne woon nga profil bu baax la. dama ni profil bu baax la mais ñoo ko viré. man ba ma gisee ñu ber galas Touba <laughs> monté la ko comité rectal këf ko yow xamoo nit ñooñu galas arrangé wu leen sax parce que même galas gañ arrangé wu leen parce que dañ naan bu gañee mooy téye département bi dañ naan mënuñ dara ñun mais sëriñ bi ci boppam biñ ko nee liste nationale yow nga pendant des années ñu def la ministre conseil ngay mos dara te leer na man président seetaan ay màggal yooyu sëriñ bu ñu ma bëggee def ci liste nationale dama ne nañ dugal galas liste nationale bàyyi leen ma porté ma porté capitaine équipe bi takk ah, yi bañ. ko fa ne ñu dugal ko laa wax ni la si commencement bi Cheikh Abdou man boo doon man may doomi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di sëtub sëñ Mounou saa damay jël liste kii bee euh, euh, député gee xam nga suppléant sax APR amu ko mais damay bàyyi. waaw ah, ah, moom laa non dama ni cest moom du ko def di man mi li may wax nii. ay militants yu sax yu Touba bokk ci APR dun ko nangu tamit. dama ni xam nga lu tam war ko def Cheikh Abdou gañu ñu Touba dañ koo gañ chef ah, am Daaru Xuddoos. waaw mais mais Aminata Touré nii gañu ñu ko euh, Kaolack. bokkul ah. di tête de liste nationale. bokkul ñu gañu la fa nga dëkk. bokkul de sa bureau. ma premier adjoint au maire de Touba yor communication màggalu Touba doomu soxna May doomu doomu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak soxna May. loolu beneen liggéey la de loolu beneen liggéey la. waaye yow xanaa loolu say taalib yëpp bu ñu la wooteelee xanaa waa wiya wilaya sax bu ñu la wooteelee nga gañe. waaw dama ni dama ni man dama lay wax ay pour dama ni électorat wilaya rek bu ñu la wooteelee nga gañe. d'accord xam nga gars yi dama laa wax ni la Sidi gis nga fii bàyyi wuñ ngi naxaate sëriñ bi wala boog ñu bàyyi ñu bàyyi politique bi yow un leader sax nan ngay bëgg a ba deux heures ak i trois heures nga bëgg a gérer ak ak campagne. loolu loolu waa léegi yow sa diggante boobu noonu yow yow xam nga euh, man ak yow waxtaan nan ci lu jiitu euh, li nga xam ne moom mooy euh, législative yi ñu waxtaan waaye tamit ma ànd ak ma fekkee sëñ Galas Kaltoom ñëw seet si la sa kër nga wax ci moom loo xam ne maanaam jàppoon nañ ne maanaam. majorité bi dana am parce que yow da nga porté woon benn combat ci sa côté lan moo looloo kon ak li fi jaar yëpp lu mën ko yóbbee Touba euh, ber ko looloo taxal kon nga roccee ko toog man yow démissionnaire nga politicien bu démissionnaire wala. bi ñuy def bi ñuy gagné en 2012 muy gagné liste yi kan moo nekkoon directeur de campagne man est ce que xam nga loolu. waaw nekkoon directeur de campagne bi. mënoo ci a jàppaat tamit. waaw déglul ma wax muy tam koo xam ni ba léegi may moo mën ñii mu leen gën moo leen mën. mais dañ koo juumloo galas électorat bi mu am Mbàkke ak ni ko waa Mbàkke mën a dégloo duñ ko dégloo si Abdou Bali mais boo demee dugg ca ñoom waxatoog waa Mbàkke yi buñ lay woo a doo jël mais sëriñ bi dañ lay dañuy xam ni gars yi yà maanaam ci pexe yàqal la lañ jëm lay mën dañuy mën a dem di la wekkati ki ñëw kay nga ñëw këram mu ni la dinaa la jàppale man booy jàppale président laay jàppale dinaa jàppale mu mën waaye sëriñ bi dalay lay gis wala booy monté comité électoral Touba ba ñu wax la nga ko nga éviter même boo Angloma bokk ci comité électoral ba sa éviter ko. mu ñëw toog superviseur déglu la. d'accord mais gars yi xam nga buñ la buñ la xam nga euh, Youssou Ndour dafa woy ni béy bu war ànd ak moroom béy saa gars yi la bëggee rey <laughs> dañuy fexe ba génn la ci béy abool ah, ak ci lii. Euh, loolu leer na mbokk yi euh, seen entretien exclusif jàngatu élection locale yi élection législative bi ñu wees sa sa sa sëtu sëriñ. moo nekk député gañewaat maanaam dafa nanguwaat li mu li li maanaam euh, population bi boog doon ko wuy waat ci élection yi loolu noo ko jàngatee yow. xam nga xam nga xam nga Abdou Mbacke Ndaw nit ñi dafa am benn affaire boo xam ne dama yaakaar ni dañoo dof wala dafa am lu leen dal. Hmm? waaw liggéey bëgg Ndaw bi ñuy dem élection dafa gañ Iba Guèye ku jafe woon a gañ. maamam am ñaar fukki titre foncier ak ñaar ci Mbàkke muy sëñ du borom dër bi bokk ak yéen ñii di naar ca Mauritanie am am am support am i nit doomi sëñ Tuubaa yëpp sëñ bi doo jàppoon Mbàkke nekk waajuram wu jigéen addunaam bépp mu servir ko Mbàkke soxna may mësta tukki ba fanaan fenn lu mu guddi guddi Mbàkke lay fanaan si Abdou Mbàkke Ndaw avant muy nekk maire Mbacke may na hôpitalu Mbacke bi Iba Guèye mair de Mbacke sortant moo ko wax mu ni wala du 200 millions la may maire bi man mii di maire mënuma koo def partout Sénégal may na fa ambulance defa sociale Casamance Fatick partout Sénégal bu fekkente ni nii nga ñëw élection mu gañe maire bi ñëw élection oh, ñu indi ko APR def ko. con euh, conseil euh, euh, spécial premier ministre kon dugg naa peer wala bu ci dugg te boog man man taq na ci taq na ci nga ñëw élection élection kii locale yi non député yi investir ko mu sol marron bees campagnal la ñu ñëw élection présidentielle mu mitinal la fii ci gaar bi ñu ñëw élection mairie nga toog ba élection yi des quatre jours collectif de liste nga di jiitaluñ la sëriñ bi loolu ak tooñ la te loolu du président lépp Mahmoud sale la parce que téye woon ab du Mbacke Ndaw bàyyi ko mu dem mairie ñu jël Gallo yóbbu ko conseil départemental nit ñi jàppale ko moo gënoon a logique nit doo ko puus di ko puus ba mu ba mu génn bunt bi nga koy nga koy nga koy nga koy këdd ay mbokkam dañ koy jàppale boo xoolee nii ñu ko wooteele ab sot la. boobu nag Gallo nag gisul woon dul mairie. waaw mais dama xam nga politique. mairie rek la bëggoon bëggul conseil départemental. xam nga xam nga xam nga xam nga galo wax naa ko sànq suba rakk la loo mën a wax am na ay poy ay poy yu mu jël te fexe ba nekk fonctionnaire di jox seen yaay dépasse yor leen ñu ngi ko ci sant di ko këram mais politiquement dafa des. gala pilifalim ak lim jàng xam-xamam président conseil départemental moom loolu sax la jàng far mais waaw loolu tey bu fekkoon dañ koo liggéey loolu terme Touba jàpp ci Abdou yor mairie bi ñu dem élection Benno Bokk Yaakaar Abdou gagné dep commune de Mbacké ñu gagné Touba gagné département yi jàll conseil département galoo mën naa gañ Fallou mbàkke mi parce que fàllu ak bàyyi dañoo xam ne dafa rek ñu fal ko parce que ab ab président de conseil départemental boo xamante ni nii nu amoo amoo bilan amoo loo def ñëw na jàpp ñu jàpp ñu ci élection yi Touba gañuñ leen mooy nit ñi ci boppam ñoo dul nangu ku leen di nax léegi loolu mooy répondre Abdou maanaam euh, mi ngi mel ni match bu yàqu ñu tëggaat ko surprise day am. match bu yàqu ñu tëggaat ko surprise day am. dëgg la Bokk Yaakaar sax ci département Mbacké loo ci xam parce que yow yaa ngi peut-être ci kaw am na loo xam ne ña ngi koy nas wala président nas ko ci maanaam li nga xam ne moom moo ko fi dese. xam nga département Mbacké fii génnewuñ ay Mahmoud Saleh ki Mor Ngom ñaan ñoo koy régler problème bi day continuer ah man ñan ñooy ñuy ñëw di investir di jël ay 5 millions di jox ay booy ak yooyu naan leen jàpp leen ci Mahmoud Saleh la di partout moo ko yàq. parce que ab dëkk waa dëkk baa koy lijjanti seen bopp bañ nee bëreet lañ commencé réunion kër Mooraan tey exemple bi ma lay jox est-ce que tey jii jëloon Mooraan mañ commencé woon réunion mu bokk benn bokk yaakaar ñu porté woon ko mu nekk nu mu tëddee ab candidat député mooy gën defet bu bon bi sax ndax loolu compétition la Mooraan ak Abdou compétition la mais liñ def nii du compétition yow tam. du lu kenn xam. waaye sëriñ bi tey buñ nee Mooraan Gueye bu parti socialiste Fallou Galas mais kooku électoral la. mais boo xoolee li ñu doon compétir nii ànd ak waa ji ndaw si muy ku baax tam ni ma la wax sëy na sëy bu rafet am wax dëgg yàlla mais cest à bu ngeen demee di wax nit ñi dañ leen di déglu mais dañu naan choix bi gën mooy Abdou parce que Mbàkke tam buñ sañoon ab député boo xam ne bu fa demee la muy wax dana ko xam. loolu loolu loolu loolu loolu mooy mooy mooy mooy mooy dëgg. merci sunu émission daanaka jeex na li ma dese ci simila ñaar lay doon euh, kon donc yaa ngi confirmé ne euh, sa xarit ba woon euh, nekk na député da nga fas yéene nekk ci wetam tamit di ko dolli comme na nga ko doon conseiller ci bi mu nekkee ci mairie bi parce que yow conseiller am nga woon. Abdou Mbacke Ndaw lu ma mën a def man ba mu fekki président Macky Sall dinaa ko def. ndax jotuwut ak moom dara. ña ko xeex mooy mu Saleh ak cabinet boobu nga xam seen lépp ay complot nag mais. araftu nañ ko de dégg nga dégg nga gars yi lu ñu ko wax. waaw dama ni dana metti dana metti trop mais Abdou man leer na ma leeral yàlla ni njëriñal réew mi njëriñal dëkk bee ko gënal jëmm ndax koo xam ne da daan nees nees glace gi di wàcc. ngay sarse ay conteneur di solee gan pour indi ko pour jàppale ko sam réew di jël ay gone di leen yóbbu ñu leen di opérer opération de cœur buñ nee la lii mooy njëriñal Mbàkke wala lii boo ko defu réew mi yàqu da ko def xam nga problème bi mooy dafa am nit ak nit koo xam ni moom sa réew bu la soxlaa lañu la bëgg la nga bëgg da nga ko def et di saluer tam docteur Fall mbay Abdou Karim ba ñuy dem ba ñuy dem ba ñuy dem audience ba da ngay yóbbu tëb ak pee ba deux da ngay yóbbu troisième Abdou jël deuxième yóbbu Fall mbay moo jël quatrième yóbbu Abdou Karim Fall mais lo galo la doon draguem koo mën dama lay wax gis nga un gentleman bul ni mënu ko un gentleman jàngandoog ñoom génération ndoog ñoom di cadre bu ngeen tëjoo yéen ci néeg ni lii mooy njariñal département bi man jaral na ma sacrifier sans bopp sax waaye na dëkk bi baax nañ leen dem ci régime bi ñu ànd liggéey jox leen ay poste bi ko mais boo xoolee ñooñu sax moo leen pousse ba gars yi demuñ parce que bu fekkee da ngaa jël ab septième ak i sixième ak ñoom benn conseil municipal ak ñu ko amul yow ni président ñi ñoo defoon liste parallèle bàyyi fa troisième ba ak quatrième ba ak deuxième ba loo xam yow bu doon ab course fas sax ñooñu nga wax duñu leen fay sëriñ bi Sidi dëkk bi moom rek lañ am amuñ lu dul moom ak Sénégal gi nañ bàyyi suñu naxante yi te di ci dëgg di defanti wax wax wax waxi dëgg. loolu mooy dëgg. merci merci beaucoup merci mbokk yi ñu doon seetaan seen euh, site 28 pro TV ñu ngi am mbégte euh, xam naa ne suñu waxtaan euh, du dañuy def ay pàcc pàcc moom dana dellusiwaat ci li nga xam ne moom mooy fonctionnement wu wala bokk ëllëgub li nga xam ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar ci nu mu gën a yaatoo. ak lan mooy nekk seen mujjantal ñoom leader yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune bi surtout euh, maa ngi àndoon nag euh, Omar Sarr ci maanaam caméra bi ci réalisation bi bekkaay dig daje ci yeneen jotaay ci seen entretien exclusif jàngatu législatif bi ñu weesu ci 28 pro.